dama leen bëgg a nuyu di leen andil nuyoowu président Macky Sall mi nga xam ni moomoo ñu digal li ñu fi dajale tey weer yi passé daf ma ne monsieur le premier ministre dama bëgg am bilan wu xëyu ndaw yi Menem Pape Malick Mbappé je te félicite tu as encore marqué un but Menem Pape def compte rendu xëyu ndaw ñi yomb na mais je préfère wut échantillon wan yëpp cette idée lumineuse et généreuse bi président am idée bi mi ngi porter ses fruits xam ngeen ni chômage musiba la liggéey sutura la sakk la njariñ la loolu moo tax au cœur des préoccupations du président Macky Sall xalaatam yépp mooy nu ñuy saafara liggéeyu ndaw ñi